gannaaw bañ la jaalee ki nga xam ne moo di Mouhamed bin Abdallah Dione tamit di leen masaw coono aussi ci loolu bëggoon nañoo am ay quelques témoignages ci yow ci jëmale ko ci nga xam ne moo di Mouhamed bin Abdallah Dione waaw tey bis bu gis la bu tiis bu metti ci ñun témoignage bi day xaw a jafe ndax circonstance la mooy yàlla mi nga xam ne subhanahu wa taala dara taw ko jëlee fi ko xam ne daf ñu jege woon trop ku sori woon ci man ndax eh, man eh, ba ma koy xam booba Macky mooy premier ministre mu nekk directeur de cabinet ba bi may nekk ministre en 2006 mooy directeur de cabinet Macky Sall premier ministre masuma dem bureau Macky sal sama premier ministre man en tant que ministre jaar bureau directeur de cabinet Mahammed Boun Abdallah Dionne ñuy waxtaan di waxtaan di waxtaan ba Macky oolu ba ne ba biñ jógee ci gouvernement bi man ak Macky Sall le même jour lañ dem assemblée nationale le même jour ñu ànd ak moom assemblée mu continuer nekk directeur cabinet Macky kon maag bun dañuy yàgg man moom Macky Sall muy xaritoo gu wóor nag mu fonkoon ma nag ba temps yi fu ma gis les saan fu daje rek réunion Benno Bokk Yaakaar yi nu may ooyee le sauveur de la république fu ñu gisee rek mu ne ma le sauveur de la république eh bul toll yow mais mu loolu mu nekk loo xam ni li tax mu neex ma mu wax loolu day dëgg koo xam ne ñu bëri ñemewuñ koo wax muy dëgg koo xam ne am na ko ñemee wax mais iñaane nañ koo wax muy dëgg ndax bi mu ba tàng Sénégal maa fi taxaw jàlloo ñi doon taal ak di yàq ñii dëggoon tey ñoom mu tàng jër bañ taal sama kër Sénégal waaye Sénégal ni mel noonu ni mu bindoo la am na ñoo xam ne dañuy tëj seen i bët duñu nangoo dégg dara duñu nangoo gis dara ah lépp loo jëf di ko gis moom nag mu yàlla mayoon ko mu ràññee xàmmee et puis am générosité politique am xel bu rafet bay nangu nangoo nit ki li mu liggéey li mu liggéey réew ci néew nañu ñemee ne El Hadj moo fi def lii moo fi def lii moo liggéey lii daf dañoo far wala dañoo iñaan wala dañoo naafiq moom ni nekk nit a fu ma le sauveur de la république barke kooku nag bu demee man am na lu rëy lu jóge man ndax gis ku ñemee dëgg ni moom am xol bu rafet nangu valeur ak courage nawleem ak mérite nawleem bëreetul Sénégal ndax par parloo bi far bi moo ba objectivité ak courage nit ñi dañ ko rafle daal ñeme wax dëgg ngoru wax dëgg mbaax nangu sa mbaaxu nawle dafa jafe Sénégal léegi moo tax ma ñàkk naa partenaire ku bëri xam-xam am fit ñeme dëgg iyaane iyaanewu koo wax iyaanewul wax li mu ah bu ñu Abdoulaye yàlla ko yàlla xaree àjjana dañ koy ñaanal yàlla ko yàlla teeru def si ndax euh, mu nekk euh, benn qualité bu raar Sénégal léegi nit ku raar mu ñu ñeme dëgg am xam-xam ah kii am yërmande ci am générosité mu a nangul ku ne sa valeur ku ku ne mu nangul la li la yàlla may ak li nga doon ak li nga jëf ci sa biir réew dañu Sénégal lañu am yàlla na Sénégal jëm kanam ñu koy jaar Sénégal yëpp bañaa la fu mu tëdd suuf oyof ci lool yàlla teeru ko firdaw si jaboor gi yàlla teg seen loxo na jaare Cheikh Diop John xaritam eh, rakkam di sama xarit rakkam di sama xarit bu wóor ñu nekk noonu assemblée nationale dafa liggéey liggéey bu rëy ñu Cheikh Diop John frère Mahamad Boun Abdallah Dionne di jaar famille bi yëpp jaar Sénégal jërëjëf. delloo ziar bu kay maa ngi delloo nuyoo. Euh, waaw onze billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmani rahim di leen jaale di jaale Sénégal yëpp ñëw ànd ak euh, délégation président Abdoulaye Wade délégation Karim Meïssa Wade mu yabal ñu ñu ñëw jaale euh, Boun Abdallah Dionne mu nekk euh, peut-être luñ ko mën a waxee figure emblématique du Sénégal ndax Boun Abdallah Dionne ñëpp xam nañ ko ñëpp ràññee nañ ko mu liggéey liggéey bu am solo ci Sénégal occupé fii ay poste stratégique fii ci Sénégal premier ministre euh, madame ci station yu wax directeur de cabinet président ci station yu bax yu kawé rek dañ ko xam mu liggéey liggéey bo xamante ni liggéey bu am solo la wax dëgg euh tay mu génn aduna euh, ñëpp teew fii tey boo ko xoolee moom Murid la ñëpp xam nañ ko waye tay waa kër El Hadj Malick nañ fi waa kër Boukounta Ndiassane waa kër mam Limaamu daje nañ ci ak xétu politicien bu nek waye daje nañ ci ak xétu sëriñ bu nek mais daje nañ ci ak Sénégal journaliste yi ñëpp ñoo ngi fi yéen seen liggéey yéen a ngi koy def ndax lii moom moo rafet feeñal fësal li nga xamante ne moom la Sénégal di def yéen ñëpp ñoo leen soxla moo tax fu ngeen taxawalee ni rek dafay taxaw waa xam ne ñu dégg la nag mais euh, bu ngeen taxawalee ni dafay taxaw ndax seen liggéey ngeen di def te loolu lu rafet la. waaw comme relation bi mu am ak euh, man récemment rek yàggul wax dëgg yàlla yónnee na ci man ci biir élection yi. am lu mu yónnee ci man waxtaanee ko waaye lépp ci jàmm la ak encouragement daf may wax ni toujours sama soxna daf la sopp daf ko daf ma sopp daf ma bëgg loolu nag xam nga euh, Sénégal moom ñëpp gis nañ ni muy doxee yàlla boole ñu ci ñi nga xamante ne tey am nañ luñ def ci Sénégal ba tax na sénégalais yi am fu ñu teg donc euh, loolu dañuy ñaan yàlla rek euh, mu taxaw te yàgg ndax loolu suñu jikko la du dañ donc ñoo ngi ñaan yàlla xare ko aljana te yeexee ñu yàlla bañ koo fàtte te ñun tamit ñu bañ ko fàtte ndax moom moo ñu jiitu incha allah ñun ñoo ciy topp ñun ñoo war a tiit moom tiitatul ndax defe naa ni lu yàlla bëgg la ndax koo xamante ni tàgg nañ la lu mat juróom benn yoon ngay dund ba mun a waxal sa bopp tey yàlla moom la ci sa ci ginnaaw lépp lu ñu mus a waaj moom ku yàlla soxla la ku yàlla bëgg la ñoo ngi ñaan ci yàlla ak Serigne Touba mi nga xamante ne moom la ñu bokk yaakaar yàlla xale ko àjjana ko ruko bijana nabil karim sallallahu alaihi wasallam ci wéru tedd wi ci bis yu tedd yi mujj ci koor bi mu génn ci àdduna mu lañu doole rek wax na ko moom ak ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ko la fekk exemple, l'enterrement euh, euh, de Bounakanagion. Actuellement, tout le monde est venu vers euh, cet enterrement. Que pouvez-vous nous dire à propos de Bounakanagion D'abord, Imanillah, Imanillah, Hiradiouna, Sunugorom Boussoukhla, Nyep On a perdu un grand homme, un grand homme qui a servi le Sénégal par ses qualités. Je ne peux pas parler de ses qualités parce que c'est énorme. Un homme humble un homme serviable, un homme très simple. Que Allah Azawajal l'accueille au paradis, que aussi soit sa demande éternelle. Et Maïdiale, toute la coalition qui fait partie, qu'on a euh, les membres de la coalition qui ont fait un grand travail. Mention spéciale à M. Tchernolo, qui était le ministre Tchernolo, voilà, qui n'a ménagé aucun effort pour que cette campagne soit bien qui. On prie pour euh, notre président, Boun Abdallah John, et que Allah l'appelle dans son Qu'est-ce qui vous a plus marqué sur Boun Abdallah John un homme humble. Il avait tout. Un homme humble et un homme serviable. La diaspora, tout le monde, je fais partie de la diaspora avec sa coalition. Euh, Boun Abdallah John était un homme très humble et très simple. Et il avait tout. Vous

gis nañ ne affaire bi ba mu amee ba léegi presse bi li ci li ci war a def lépp en terme de couverture ko ciy def te loolu aussi wax dëgg yàlla ñu ngi leen koy jaajëfal seen taxawaay rafet na ci mbir yi loolu wax dëgg yàlla kontaan na relation ak presse loolu loolu yàgg na loolu na lool alors ki nga xamante ne nag mooy xam ci moom euh, muy nit ku dëgg nit ne la yàgg naa ànd ak ñoom ci oto ñuy tukki waaye bu fekkee ba dugg jotee bi lii lay def làkk presse bu benn xasida moom lay jàng ba muy àggee fa jëm loolu dama ko fekkee fekkeeti ko dañ seedeel bu nag ci wàllu liggéey wax dëgg yàlla ñu tegu ju gàcce benn yoon ndax ku ko xam-xam ne nekkoon na fi ministre nekkoon na fi premier ministre am nekk premier ministre sax nekk fi ministre en charge nekk premier ministre

respecté woon ñëpp jox ku ne cëram ci ñun ñi nga xamante ne moo ñu magoon France daf ñu jox cër bu baax a baax a baax te loolu ci kaw yu rafet la ñuy gis si moom yoo xamante ne yàlla dogal na ñu dañ ko teel a gis si moom ba tax ànd ak moom tey réew mi ñu bari ñu ngi naan jubal ak ak ak jomb loolu valeur la yoo xam ne ñun teel a ñu ko gis si moom parce que loolu dañ ko déggee même seen jëmm amuñu yàq amuñu amuñu xalaat ñu tey foo mu jëm moo ko gënal fii fii mu jëm parce que liggéey dañ koy ñaanal rek borom bi yokk leer ci bàmmeelam wala ko àjjana yu gën a kawe te loolu ci njort bu rafet nga xamoon ne nit ki mu doon te tey ki nga xam ne mooy lakk foofu Ousmane Sonko seede yi mu def ñu def loolu di koor bi ca hôpital principal dafa dawloo yaram yu bari te loolu dafay traduire que xëy na ñàkk bokk camp ci politique mën naa am waaye Sénégal bi te li ma xam ci sama morom muy lu rafet ak lu koy séedee te yàlla rek tax donc loolu aussi ñu ngi ko aussi le président de la république parce que li ñu ci waroon a def def na ko di masawu nag famille bi Moussa famille naturelle ak sa famille politique mais yéen ngeen xam ci dara.

Euh, salaamaaleykum euh, gannaaw bañ la jaale li nga xam ne ñoo ko daal di bokk muy Mouhamed Boun Abdallah Dionne nga nekkoon employé léegi tey lan nga ñu mën a wax euh, quelques témoignages ci kan moo di Mouhamed Boun Abdallah Dionne. waaw lu ma leen mën a expliquer Touba dem na wala man liggéey naa moom 14 ans ci benn kër mais mosuma dégg mu wax ma sama tur saa du fa jaar saa petit frère la may wooyee kii Touba dem na vraiment ku am diine ku am vraiment man mosuma gis fu mu mer mosuma gis fu mu waaw vraiment daf maa jàpp koo xam ne moom moo mujj 14 ans de service bi benn fan bu ñaar fan bu ñaari semaine liggéey naa moom 14 ans mais mosuma gis loo xam ne daal même campagne bi ñoo ko commencé woon di ce qui sama loxo la jaar mais mosuma dëgg loo xam daal moo tax ndey bi vraiment daal man gëpp man damaa jooy loo xam ne daal parce que moom dañoo yàq lii dañ koy nañu bu baa jabar ji aussi même mais moom place boo xam ne daal ñoom ñoo ñu Ousmane Diouf quoi ñoom ñu na euh, ma lool ñu jëm France man ma maa ngi dem maa ngi maa ngi gindi si yàlla toujours mooy dogal ma ko mais yàlla mooy dogal vraiment Fapal dem na quoi Fapal dem na quoi mais dafa am béykat bu dugg Sénégal ñun daal bi Serigne Touba la cent pour cent moom waxoon bu waxee rek waxul Serigne Touba rek dañ leen wax waaw mais dañ koy ñaanal bés bu am bés bu mu amee nii les jours yi koor yi vraiment bés bu rafet la ñu toog les jours vendredi aussi waaw yal na yal na moo moo mu yore arjana mais ñu koy ñaanal loolu ci arjana dina kawe waaw ñu bëgg buntu Touba ñu ko ubbee noonu vraiment boobu yëpp seede nañu seede bu rafet mais Touba la nekkoon yàgg nañu dama kër la ñu nekk si mais ne daal ñu di ko ñaanal rek suñu borom teew ko ak gën ko loolu ñu xam ne waaw na di remercier aussi ñu seen ko yàlla yàlla merci beaucoup euh, maak euh, jur ndey ma jur sama ndey ak bokk ndey ak ak soxnaam Fatou Sare. ak taw si gannaaw bi ñuy suñu Mohamed mu suñu mag mbokk moom lépp. ma dem ak benn frère ma jox Sall daanaka mu jóge ba Diourbel ak teg si wàllu fin deux mille vingt quatre yàlla dogal si biir liggéey bi ñuy fédéral à l'étranger nekk benn bu fa liggéey mu amoon ba li xew am Sénégal fekk lii. muy sama frère bu mu Sall mu ngi ci comme ni ma leen ko waxee rek nit ku baax la woon benn témoignage ko Sénégal yëpp nit ku baax la woon nit ku doon Sénégal borom xam-xam la borom mais yàlla mooy ñëw kooku dem si moom nit ku doon rafet li ko bëggee mooy bis bu dem ak weer bu dem ak waxtu bu dem ak waxtu bu ko denc ak waxtu bu ko denc loolu du lasaar li daje si moom bari na si njëriñ ñu ngi ñaan suñu borom yàlla bu ko ca jiitu saa borom wàcc sa yëpp influence. lu waay القرآن ترتيلا إنا تنزلناه قولا ثقيلا إن أنشأت الذي هي أشد قولا من أقوم قيلا وإن لك في النهار سبحا قولا ونسيت من تابت أنه قبض وقمة والمغرب لا إله إلا هو فاتقوا الوتيرة اقضي على ما يقولون واهجرهم suñu fan yi nga xam ne moom lañu génn te yàlla dogal si la jël bakkan mu nekk ñun fukki fan الرحمة أشوف الرحمة أشوف المغفرة أشوف المجد محمد yàlla alam na alamal na sayram sawar kuy def bu baax rek a baax xoolal bés yu tedd yi nga yàlla jagle waaw di di ka jaale soxna kat ma seq ak moom teraanga mosuñu gisee maa moom waaye bi ma nekkee ak onu bi bi may ñibbi dafa jox borom këram benn parfum bu neex neex ni coo demee nga ni ka maas ka ziare parfum bi bi ma gisee parfum bi ma gis si moroom sama parfum yaay sama yaay bopp moom moom parfum la wax te gis sante mu woon sax ñii ñaan si barke weer wi ñu génn yàlla ko yàlla yóbbu si àjjana yi gën kawe sama abdu daf wax ni doomu aadama du am na ñaari laaf am na wàllu baay am ndey ñi ngi koy jaale wàllu baay di koy jaale wàllu ndey awalam yaw والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب يعلم ما في النصوص